ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info. Bougane Gueye Dany loolu moom ci jàmm rek lay mujj taw féex ci jàmm rek ci lay mujj parce que ku ko nara a tëj ak ku ko nar def xam na ne Bougane doomi réew mi la te li mu ci askanam lay dellusi si te seen TV ñeenti téeméeri junni nit ñu fay liggéey rek. na la wóor na ñu ngi dimbali juróom-ñaar téeméeri junniy doomu aadama mm. ndax seenu njaboot ci ñoom la ñuy xaar du xool loolu ak samp bi mu samp ak loolu liggéey bi muy liggéey ci Sénégal doomi Sénégal di fa liggéey muy yokk développement réew di yokk développement askan ñu naan dañ koy tëj loolu tëjuwul loolu waxin la rek waaye suñ borom lépp ci la bokk liggéey boo gis day am ay gàllankoor. mais taw ne après loolu da di ci jëpp quoi. non jàmm ci jàmm rek lay mujj incha allahu rabbi dinañ ci wax dinañ ci kilifa yi ñu ngi def sarax yi nañu sànni xam ne ñoo nekk ci réew mu bëri jëlti jëlti mm-hmm. ak seetu soxna Aida tout c'est possible parce que soxna Aida day seet mais liy seet nekkul ci soxna Aida mbaa xam nga ni saraxu soxna Aida yii mu la wax ci seetam ci ndox mi ci pettaaw bi li soxna ay da xool tàllal sa loxo wax la ko ci boo nekkoon lënt lënt bu lëndam këris làmp yi dañuy tàkk seetu ay da mu tudd na torse yi leer torse yi leer à mesure non làmp yi duñ tàkk boobu ay eh, moom day kere nga neen waaw accident yi wax naa ci nee naa leen na yaay bu ne togg ñetti ndabu laaxu sarax képp koo xam ne góor nga nekk njagamaar ngay journaliste ngay koo mënti doon fi jamono ji toll à part de le 30 na sénégalais yi saraxe yaay yi nañ saraxe laax ñetti ndab góor kuy borom kër tey góor rek ak noo mënti toll utal ginaar gu weex tàll nga saraxe ko. barke Serigne Saliou. mais ne suba la 30. moo tax vidéo bi sénégalais yee ko soxla. Hmm. nañ def nañ def juróom-ñaari guro yu weex ku am doom perantal wala nga toll ci jigéenu wérul da nga wut juróom-ñaari guro yu weex juróom-ñaari guro yu xonq nga xooj ko fanaanoo ko soo xëyee nga sangoo ndox mi soo paree nga sarax guro yi ay góor kuy jigéenu wérul mbaa nga yor ay doomu parental ku am 5 ans ndax euh, xale yooyu bëri na ngelaw poussière bu tëndu dina jóg mais ci jàmm rek lay mujj nañ def sarax yi te Sénégal ay dal nañu dal te yeneen te jàmm te yeneen te jàmm te xool kuy dem nga ba ko ci yoonam mu dem yàllaay kiy yëkkati yàllaay kiy aj yàllaay kiy teral yàllaay kiy suturaal yàllaay kiy dooleel kon lu mu def nan ko bàyyi moom mi ko aajoo te bu kenn xeebal kenn li mu yor. mais nga laa bëggoon euh, parce que gis nañ ne fan yi euh, nit ñi léegi seen xol yi xat na de trop. parce que bërki démb am na ko ñu rey Ouest Foire euh, ci ay yaa am priorité am priorité tegaat nañ ci quelques jour ñu reyaat beneen waay joo xam ne nee nañ boolu ceeb moo tax ñu rey ko. nan lan nan nga gisee loolu nan nga gisee nit ñi léegi. li nekk ci ñoom ñoo ko tey wala ñu ko dafa am lu leen dugg wala. bu ñu jógut ci li xew ci réew bi di nga gis sax ku rayante boo xam ne bii boolu ceeb la di nga dégg kaasu kafe bi wala kaasu ataay zëm bi bu ne di ko dégg parce que. Euh, ni ñuy jëlee foo xoli li ci nekk waxuñu ko te sarax yi dañ koo bëgg a bàyyi mm-hmm. suñu yëfi kër maam yi dañ koo bëgg a bàyyi ngir yàqkat yi waaye ku ne xam na fi dëgg gi ne ki nga xam ne daaw ba wala 4 ans ci ginnaaw ba 5 ans ci ginnaaw ba 7 ans ci ginnaaw mi ngi lay wax ci sa réew loo xam ne boo toogee ñetti fan ñeenti fan gis ko booy wutali war ngaa wutali kooku mu leeralal la lan moo ne ci yow. waaye chaque jour fi li dara ne dañ koy bàyyi ngir yaama neexoo ak yaama safoo ak du ñu xool ne man su ma dugalee sama vidéo dama naan képp koo xam ne soppe nga wala xarit nga jarul ngay commentaire. parce que ñu ubbi groupe WhatsApp bi def ko coalition kaa la ñu dugg commentaire saag boo leen fa dégloo di seet commentaire yi doo lay xam fi mbir mi ne parce que ñooñu liggéeyatuñu seen liggéey seen i laaf tooy na dañ leen a dégager. parce que moment bi kenn wóolootu leen pour jël sa xaalis di la ko jox léegi nag ñoom ay group commentaire léegi lañu lañu société commentaire lañu ubbi. société commentaire ku commentaire ñu may la 1000 francs wala 2000. ñu nga commentaire la soxna Aida saaga ko pour nga décourager loo nañu xool fii yëf yi ne nañ dem vaar. soxna Ayda ak vaar. soxna Ayda nay wax nañ dem vaar de. waaw wax ju wér dëggu mooy dem vaar waaye na xam bu ñu demee vaar bu ñu gisee taal si seen bopp ndax internet tuddul internet inter denc la tudd. bu say wax wéree dama seeti sa bopp. yéen xam ngeen. Mhm. ba la ñëwee sama kër gis ngeen li ngeen fii fekk ku am xaalis na faju ku amul xaalis na faju ku jaaxle dina am ku jaaxlewul dina am soxna Ayda dina la faj ba pare dimbali la ci li ko yàlla may boole kook looyu jox la loo yóbbu sa kër waaye soxna Ayda di nga ñëw it mu diis la soxla nga bég ci soxna Ayda may koy taraanga tey boo leen gisee sama kër gi ni mu bindoo xool li fi ne xam ngeen ni taraanga yi kese la te maa clients yi rek lañ ñooy samay xarit ñooy samay mbokk yàlla nañu yàlla defal jàmm te lañuy liggéey ñu seet ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info